rahmaan rahim barke borom Tuba xasida ci demuk sëriñ bi ak màggalu asirina muharram alhamdulillahi salaam lay tàmbaleeti fil kalaam kalaam musalliyan alal imaam yeneen ba jiite sang ma del si woo daam waa ñu ko dégg ne manaam nan wuy si maam njiitul muriidi Bamba bis bam jëlee Ahmadu daam indi ko Tuuba mu ne kaam ba tax muriidi ñëw diraam màggal ko war na bokk ya taarixu bi nay gëtëm cawam sasin lali xëtëm di fuglu Mustapha jëfam feesal na yaari fegg ya moo wax la lëf calam yaxal fésal jaloore yam saxal lisaanuhaa lani waxal ma wax lu fuq nopp ya cawam sasin la Bamba dem bawam te seen atum renam téeméer yat na ca sangu cawam si sin la bamba bawam te sin atum renam téeméer yat na ca sangu ku samp mbir di ko lawal téeméer yat bakk la war na say géwël yelloo nga mboolem bakk Cheikh Moustapha Mbakke yelloo nga mboolem bakk Tuubaa raw na capital jumaam ju mag ji yaa ko yaal andil ko raay bi am di daal gàddu nga ngën ji raaya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xàll ngir mi ñépp xaw wooteel ko ñépp wàbb ñëw jaaraama um nga lamb ja Cheikh Moussa Mbakke jaaraama um nga lamb ya màggal gi indi na arab ak asiya ki ñooñ Europe kenn du la xarab ëllëg pagaa yàlla ya bis bi la yàllay dimbale bis bi la yàllay jéggale bis la bu yàlla yi séddalee ay may ca yu fekkeer bis bi lee jar na war ci gaal di joow ba tabbi Sénégal Maleek Guinée ki Portugal ñëw nañ ne gaa bis bi jar na war ci gaal di joow ba tabbi Sénégal Maleek Guinée ki Portugal ñëw nañ ne gaa bis bi lee jar na yu dëkk ngir man di teel a wuy si gaaw fëx leen te jàjj sa leeb dox ci naaj bëreer ca man di ngeen di laaj bu dikkatee da ko waaj moo gitti bis yu mag am dee ko woote nel bërët ñaar fukki fan ci tamxarit mbokk ki jaambur ak xarit bu kenn geesu nganteem Cheikh Moustapha du woote neen bul wuute lii du neenu neen tëlëm tëlëm du ngeen ko seen fàddu na wuggi baadaya xam-xam ba raw na seeni daab xàmmee na sunna toog bi daa kàngam bu rëy la moonu daa hubbee masal yu ya ak yeewu jonn yeewu leen ngëmmeen tuwéy na gimmi leen bu leen tan xam lu wuy si leen roy leen ca gaayu yegg ya amoon na gaayu yàlla yee ba tax na bis bi fu xayee ñu wuy si lëf du leente ci yàlla gaayu yewu ya amoon na gaayu réer ba bis bi mës la tax ñu buur neenal ko doy na ñàkk muur laaw la ma gaayu réer jaaraama mbër ma ko taran xarnu bi mat na sëkk ren wallahi am di yaa di yaa gétti peer yu gudd ya sab sampu mës la dang daay sambaar mi aw jënam du naay giññaani yaaru yug wilaayi rango nga pal yu tedd ya Cheikh Moustapha Mbacké rango nga pal yu tedd ya yaanu jamal jaw fal fara te yaanu tàggale ak miraam yaa tax ba nuy solit dara fab kaa la teg ca wagg ya Cheikh Moustapha Mbacke yaa nu jamal jaw faraab te yaa nu tàggaleek miraab yaa tax ba nuy solit dara fab kaa la teg ca wagg ya géejum ngërëm ga yaa ko fuus yaa nu duyal bagaan fees te yaay borom daarul xuddoos dundal nga mboolem njënd ya géeju ngërëm nga yaa ko xuus yaa nu duyal bagaan yu fees te yaay borom daarul xudduus dundal nga mboolem njënd ya saw ŋàññ rot na yaa di mbër yaa namp yaari weeni ngor say ndëggu sax na yaa ko dar ca pey buur yu faddu ya sa baay ba yaa ko tarbiyaal njaboot gi yaa ko tarxiyaal wooteem bu bi yaa ko yaal si nga mbooleem bokk ya Cheikh Moustapha Mbacké gil nga mbooleem bokk ya jikko yeneen ba ngay daloo koddam sa baay ba ngay soloo jaaraama njool amintaloo si gil nga ndaama kokki ya bàmbaa la ràng mayu teey waajal la jox la ab liggéey yaa gàdduraayow néegi seey wam mën nga doomi ceddo sa baay ba am na lëm bëggoon wam si yow la fi tegoon cax la ca bunt bam gegoon yaa dégg cax yu nëbbu ya Cheikh Moustapha Mbacké mat na xalifa mat na doom yilif na ñépp ngir jikkoom mbër yépp xam na ñuk cëroom moo mën a jiite dann ya Cheikh Moustapha Mbacké moo mën a jiite dann ya Jurbel la Bàmba laxasoo mbër yépp dal di jaxasoo keroog la Moustapha fasoo mottali mbooleem dénk ya Jurbel la Bàmba la xasoo mbër yépp dal di jaxasoo keroog la Moustapha fasoo mottali mbooleem dénk ya wam sesi tax na ñépp wéet demam gi tax na ñépp tiit burul ko nag ki ko fi wut kon yol mi dem ca géejo borom Tuuba wam sa si tax na ñëpp weet sa dem gi tax na ñëpp tiit budul ko nag kii ko fi kon yol mi dem ca géejo déglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbiram waajal ko def ko ca këram keroog tefaatuñ waxtu ya déglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbiram waajal ko def ko ca këram keroog tafaatuñ waxtu ya guddik àllarba lañ ko fàtt ñaar fukki fan ciw tam xarit wam sesi tàbbi nañ nawet murid ya xuus ca deq ya la xew keroog fa njur bala tax nanu fàtte karbala ngir kanu daa karal balaa fàdduna tàggoog soppe la xew keroog ko belaa tax na nu fàtte kar balaa ngir kanu daa karal balaa fàdduna tàggoog soppe yaari muhammad doom ya woon xejjam ya ñoo ko waajaloon at daga nii ma ñépp miin tàndaxiraw na gàdde si xari jang ma sant jóob moo leen ñetteel bàmbaa ko soob yitteem dërëy na mas la diig ci yàlla gaayu sàmm ya uqal bukaau maa ngi jooy uqal bukaau maa ngi jooy boobee ba tey ba faf ni demam gi tax na ruuy gooy fuñ dee tiraasi xontu ñu dal gaare abdalaay ca kër ga teg ca joojawaay keroog laam di wuutu bàyyi te moo way gunge bamba wóolu cib jataay dénk ko naa ko bis booba tuubaala lu haay bum ma dem ca njënd ya Cheikh Moussa Mbakke bis booba Tuubaa la luhaay bum tee ma dem ca njënd ya yéen ko fa yéen bu rëy te diis looloo waral bis bam ne diis Cheikh Moussa dikk ne soos mun ba defal ko dénk ya la daam ajoon ci ak ñëwam Tuubaa mëneesu koo xalam am defal ko ak bëggam màggal gi loolaa yi lee keroog la Moustapha yabal juróomu góor ñu dal ko jël ci aw defiin wu xel dajul dem nañ lu jiitu yëngu ya sëriñ Bachiru mooy imaam njool soxna faati modu maam moom lañ yabal mu andi daam daa marje xet ca ya sëriñ Bachiru mooy imaam njool soxna Faatima du maam moom lañ yabal mu andi daam daa marje xet càlleem ànd ak Muhammadul Amin attandex yi cey woowoyoon sëriñ Maxtaar Silaan ca woon Cheikh Ari Jang buntu ba maam Cheikh Ibra Faal yattoon ca sawu kër ga daal fa lañu jaar ma ne ko faal yaa yàgg dégg junjee buntu ba maam Cheikh Ibra Faal yettoon ca saw kër ga daal fa la jaar ma ne ko faal yaa yàgg dégg junjee watab sëriñ balla bëriir du siise jiitu jib sefeer dalaay baat ak ñawoon ca biir raw nañ te taaluñ lamp ya bileb sefeer ya guntinul murid yi ay bagaas la jël xanaa ya bileb sefeer ya guntinul ñoo ko naxasal muy fas ne ay bagaas la jël xanaa bagaas yi yàlla ya Cheikh Moustapha yónnee fa ndaam ak Ceerno ak Gédé Imaam ne leen na ñépp seeru daam mag ñépp ñal gu guddiya cheikh abdullahi joob taxaw cheikh maamuram jaxate ñëw ñu àndandoog cheikh ibra ndaw gas kër gu mel ne laxdu ya cheikh mbakke buso jóg taxaw jullee ko sappee selaw te feeñaluñ fa jafi ndaw rëtuñ ba sanku sunna ya bam sëlmalee la dal buur wàcc ca pax ma mel ni weer cheikh mat lamin géy dem ca biir cheikh moo dundu mbesang ya yaari muhammad doom ya jël jëmmam jë jox leen ko ñu jël jébbal ko yàlla mi dogal keroog la tàggoog coono ya borom tuuba keroog la tàggoog coono ya yaari muhammad doom ya jël jëmmam jë jox leen ko ñu jël jébbal ko yàlla mi dogal keroog la tàggoog coono ya borom Tuuba keroog la tàggoog coono ya Cheikh Moodu Ndumbe waayi saam moo mujj génn pax manaam moo mujj laal yaramu daam jëwriñ la woor na donga ya Cheikh Moodu Ndumbe waayi saam moo mujj génn pax manaam moomu jalaal yaramu daam jëwriñ la wóor na dong sëriñ bi am na ak bëggam def na ci xol yi gépp gëm dem na ba del si cib dëkkam desul ca àlli ko inna lillahi yoon yoon inna lillahi yoon yoon bisab keroog ña fekke woon wiisoon nañoo malayka inna lillahi yoon yoon inna ilayhi raajihoon bisab keroog ña fekke woon wiisoon nañoo malayka maam cer na teew na booba bis mësula am ci xéeni bis demam ga raw na mépp mbas yëngal na ruu yi xej alxaaji Fallu ngeen ji doom ñëw na te andi wul sagoom bisab keroog mbër yëppalum la xew xajul ca bokk ya alxaaji Fallu ngeen ji doom ñëw na te andi wul sagoom bisab keroog mbër yëppalum la xew xajul ca bokk ya Cheikh Abdoulaye Bawo Fandaam murit bu saadix la fandaam cheikh yeddu jaañ cheikh moodu laam cheikh asu juuf ca sappe sëriñ mamar mbay siise jaas cheikh moodu mbay caloom ne jaas sëriñ ma joobum tobbi baas yéemal murit yu dëggu ya cheikh baara silla baara faal feggoog murit ya ceerno faal muhammadun saadix ba faal ca yàlla gaay bamba ya sëñ saadix ak sëriñ abbaas mbu soobe ooya ñëw di raas tee mani way way mani baas ahmadu jooy leel donga ya tee mani way way mani baas ahmadu jooy leel donga ya xanaa ña noon seyxul xadiim jurbel la des ñoo gën a juum firndee ngi nii te duñ ko miim kuy wax na indi firnde bis bii la am di woote woon te àndu koog ña fi newoon cesam sesin la ko sosoon moo gétti bis yu mag ya màggal gi moonu ko digal di nu ci waar ak a digal ngir bëggunoo fegal mbugal bu leen di fàtte digle defiin wa jar nay fàttale ci alxuraan laay tàmbale bul fàtte nam ko toftale booleeg durus xasiida sëriñ Masamba Aysa Jéey lay jiiteloo bileb liggéey bàcc gomaay ba mos liggéey mooy jékki jiite jukki ya kaamilam la saam ca biir barab ba nee manaam koñ bu ne aw nit ne est-ce que ca njàngum ndonga ya ñu tas fukkam topp yaar jukki ko jox ko ay xiyaar ñu sax ca mihraab ba di xaar rus ba dégg nodd ya ñu dellu tas fukk ak jukki ko séddaley kibaar ca biir jumaa ja foofa jaar gis leen ca fenki kele ya ca biir jumaa ja foofa jaar gis leen ca fenkuy kone ya ñeneenti koñ ya foofaawu teg nañ fa gaayu fa taxaw guddeem nga kenn du ca nelaw foo tollu dégg kàddu ya jës bul xurub muxaddimaat mawaahiboo ki miimiyaat ñu jox ko gaay neexi baat ñuy géew di jàng tagg ya daarul xudduus fanaane riir zikroog salaatu kenn du ñi lay fanaanee joxe njàng ma ànd ak bernde yëlay kuréel ñu ngay duruus yëlay kuréel yori kuruus xam ngeen ne am di lii mu sos xaw na ca xal yi sunna ya bu ñu xëyee di ko siyaar mu nuy jigal te dinu waar yoon wa Bàmba jaar ba jiite gaa yi yàlla ya bu ñu xëyee ko siyaar mu nuy digal te dinu waar yoon wa bamba jaar ba jiitu gaa yi yàlla ya cheikh moustapha mbakke te nee na waaju fi fanaan seet nga ci bàkkaar ak i daan te loola moo ko ñaan ba am ca ñaan yu nangu ya te nee na waaju fi fanaan seet nga ci bàkkaar ak i daan loolu nee na moo ko ñaan ba am ca ñaan yu nangu ya te nee waa ju ñàkk paas ba mën la ñëw Tuuba di taas na jaay mbubbam ma wut ca paas ndemam na ñaari wubbu ya te nee waa ju ngant tax ba mën la ñëw Tuuba na dox xaw yoonu Tuuba ba marax mu toog dundal fa guddi ya ku ngab waa di di ñëw gis am kemam mu mën la ñëw na ko ko jox ñu ànd ñëw saa soxla moo di jëmm ya ne naña doon gunge si daam min jundi am leeki niseem at mu ne ñéppay ñëw ne kaam màggal si ànd ak donga ya te daana digle ñuy bale dëkkam bi buub ko dajale ngir bis bi yàlla day bale bakkaari gaay taq ya réewi Europe yi wuy si leen réewi xaraab yi wuy si leen danay xaddiim woone leen bu leen tàng xam lu woote réewi Yorob yi wuy leen réewi xaraab yi leen Cheikh Moustapha waat leen bu leen tàng xam lu woote bu leen gëlëm ba ñàkk muur bu leen nelaw ba fandereer bu leen di tëx tëx lu bëreer njàccaar du mel ne gumba bu leen gëlëm ba ñàkk muur bu leen nelaw ba fandereer bu leen di tëx tëx lu bëreer njàccaar du mel ne gumba faral taxaw ahmadu baas cofeel gi rekk moo la daas te xam ne doo wayakataas ba jot fukkeeli mata ya cheikh moustapha di mbàmmulaan duusami ëpp nay bagaan moo tax ma jug di ko dagaan pale ca waggi xëj ya Cheikh Moussa di mbambulaan duusami ëpp nay bagaan moo tax ma jug di ko dagaan pale ca waggi xëj ya ahmadullah fil xitaam laay mottalee samay kalaam musalliyan alal imaam ba haadi njiitul sang ya ahmadullah fi lxitaam laay mottalee samay kalaam musalliyan ala al imam wahaadi njiitul sang subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin barke borom Tuubaa bismillahi rahmaani rahiim barke borom Tuubaa xasida gu jëm ci demuk sëriñ bi ak màggalu asrina muharram alhamdulillahi salaam lay tàmbaleeti fi lkalaam musalliyan alal imaam yoneen ba jiite sang ya alhamdulillahi salaam lay tàmbaleeti fi lkalaam musalliyan alal imaam yoneen ba jiite sang ma del woo muriidi daam waa ñu ko dégg ne manaam nan wuy si Mustapha lu maam njiitul muriidi Bamba bis bam jëlee Ahmadu daam indi ko Tuuba mu ne kaam ba tax muriidi ñëw diraam màggal ko waroon a bokk ya taarixu bi nay gëtëm cawam sasin lali xëtëm di fuglu Mustapha ak jëfam feesal na yaari fegg ya moo wax la lëf calam yaxal fésal jaloore yam saxal lisaanu lani waxal ma wax lu fuq nopp ya cawam sasin la Bamba dem babam tasin atum renam téeméeri at bi yéeg na ca sangu xarnu ya cawam la bamba dem babam tasin atum renam téeméeri at bi yéeg na ca sangu ku samp di ko lawal téeméeri at ta bakk la war na say géwël yelloo nga mboolem bakk Cheikh Moustapha Mbakke yelloo nga mboolem bakk Tuubaa ngi raw na capital jumaam ju mag ji yaa ko yaal andil ko raay bi am di daal gàddu nga ngën ji raaya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xàll ngir mi ñépp xaw wooteel ko ñépp wàbb ñëw jaaraama um nga lamb ja Cheikh Moussa Mbakke jaaraama um nga lamb ya màggal gi indi na arab ak asiya ki ñooñ Europe kenn du la xarab ëllëg fagaa yàlla ya bis bi la yàllay dimbale bis bi la yàllay jéggale bis la bu yàlla yi séddalee ay may ca gaayu bis bi lee jar na war ci gaal di joow ba tabbi Sénégal Maleek Guinée ki Portugal ñëw nañ ne gaayi bis bi lee jar na war ci gaal di joow ba bi Sénégal Maleek Guinée ki Portugal ñëw nañ ne gaayi bis bi jar na war janaaw mbaaro yu dëkke ngir man di teel a wuy si gaaw fëx leen te jàjj jar nay fandaañ dox ci naaj bëreer ca man di ngeen di laaj bu dikkatee na ko waaj moo gitti bis yu mag ya am dee ko woote nel bërët ñaar fukki fan ci tamxarit mbokk ki jaambur xarit bu kenn geesu nganteem Cheikh Moustapha du woote neen bul wuute lii du neenu neen tëlëm tëlëm du ngeen ko seen fàdduna wuggi baadaya xam-xam ba raw na seeni daab xamee na sunna toog bi daa kàngam bu réy la moonu daa hubbee masal yu ya ak yeewu jot na yeewu leen ngémmeentu wey na gimmi leen bu leen tan xam lu wuy si leen roy leen ca gaayu yegg ya amoon na gaayu yàlla yee ba tax na bis bi fu xayee ñu wuy si lëf du leen tee ci yàlla gaayu yewu ya amoon na gaayu réer réer ba bis bi mës la tax ñu buur neenal ko doy na ñàkk muur laaw la ma gaayu réer jaaraama mbër ma ko taran xarnu bi mat na sëkkren wallahi am di yaa diroon yaa gétti peer yu gudd ya sab sampu mës dang daay sambaar mi aw jënam du naay giñ naa yaaru yug wilaayi rango nga pal yu tedd ya Cheikh Moustapha Mbacké rango nga pal yu tedd ya yaanu jamal jaw fal fara tàggaleek miraab yaa tax ba nuy solit dara fab kaa la teg ca wagg ya Cheikh Moustapha Mbacke yaa nu jamal jaw faraab te yaa nu tàggaleek miraab yaa tax ba nuy solit dara fab kaa la teg ca wagg ya géeju ngërëm ga yaa ko fuus yaa nu duyal bagaan fees te borom daarul xuddoos dundal nga mboolem njënd géeju ngërëm ga yaa ko xuus yaa nu duyal mbagaan yu fees te yaay borom daarul xudduus dundal nga mbooleem njëndi saw ngañ rot na yaa di mbër yaa namp yaari weeni ngor say ndëggu sax na yaa ko dar ca peyi buur yu faddu ya sa baay ba yaa ko tarbiyal njaboot gi yaa ko tarxiyaal wooteem bu rëy bi yaa ko yaal siggil nga mbooleem bokk Cheikh Moustapha Mbacké